Abdourahman Khan, qui est venu avec tous les responsables de grands partis de Ménil est donc venu avec force rejoindre la plus large coalition que l'histoire électorale du Sénégal ait connue, en tout cas ici à Guédiouaï, et cela préfigure sans doute d'une victoire sans bavure de notre intercoalition ici à Guédiouaï. Je voudrais lancer un appel ici à Medina ville de paix, un appel à la sérénité, appel à l'ensemble des acteurs politiques. La campagne électorale a certes commencé avec quelques escarmouches, mais on espère qu'elle va continuer à se dérouler dans la plus grande paix et que l'élection se passera aussi dans la paix. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, ayant confiance au peuple sénégalais, ayant confiance à notre discours et à notre programme de législature, notre intérêt est que cette élection se passe dans la paix et dans la sérénité avec des conditions de transparence. Nous demandons à nos militants et à nos partisans de ne pas répondre aux provocations. Parce que quand on tient le bon bout, on ne répond pas à la provocation. Sur le vaisseau, ma sant di gërëm waa intercoalition bi Yop, c'est liggéey ak seen teewaay rafet lool responsable de réunion docteur Mawore responsable taxawu ma tudd ci responsable APR monsieur le maire Beydi responsable PUR Ibrahim Cham, responsable PDS Soxna Marème Ibrahim Ibrahima du responsable waa ARC responsable du PIT Maxa qui nous de l'ensemble des partis aujourd'hui

xam ne Gounass avant Béyti dafa amoon Gounass après Béyti dafa am ku ñëw njaareem Limaamu Laay xam ne njaareem avant Mor Woré dafa am njaareem après Mor Woré dafa am ku ñëw ville de Guédiawaye nga xam ne Guédiawaye avant Aliou dafa amoon waaye Guédiawaye après Aliou Sall dafa am man de damay yëkkati loxo ca kaw yàlla nag moo ko def waaye jaar-jaar bi ñu am ci Guédiawaye may nañu occasion am ay jéego yu wër yu ñuy jéego ci dëkk bi foo dugg nag ci dëkk bi di nga gis loo xam ne ci suñu loxo la jaar ba réalisation am leneen tam am na bi yàlla defee ni jóge bi ba léegi ñi fi wuutu amul benn lu ñu fi teg loo xam ne nit mën na ci teg bu teg moo la teg ci baaraam kon nag comme ñam ngeen suñu ay ñu toggal leen ci rek mbuum ak bopp kon am ku ñu wuutu matt bañ fa bàyyi woon sax mënu ko xam kon nag wax dëgg yàlla nag comparaison bi c'est assez facile mbir mi leer na nañ léegi li am rek mooy ngeen lëkkaloo man jàpp naa ne waa coalition bi yëpp bu ñu engagé woo ak expérience politique bi ñu am ak def maillage du terrain bu wër dugg ci kër yi expliquer les enjeux du vote je crois que difficulté mën na bañ a mais il faut que réunion d'état-major baax na lool pour coordonner mais la vérité c'est le terrain il faut une de terrain et je crois que le terrain qui est le maire produit par le terrain qui est un cadre acteur de développement produit par le terrain ko le qui est lui-même produit du terrain et producteur de terrain donc yaakaar naa ni ak ñoom Ndiémé Baar Pinci Bounas ak Fouta qui vient de faire une grosse démonstration de force Asphal qui nous a ouvert les portes de Bounas ce matin ak ñeneen ñëpp yaakaar naa ni fii ak waa parti socialiste Ndeye Khady Diop en tête et Cheikh Oumar Sall en tant que responsable de la coordination yaakaar naa ne fii mën nañ fi bañ a am difficulté.

xam ne mbir mi li koy génne du xeex du jaasi du paaka du fetal li koy génne mooy sénégalais yi wóolu la sànni la seen xob sànni la jox la seen baat loolu rek am solo fii ci Guédiawaye nag ba léegi amuñ benn problème ñu ngi yaakaar ne problème du fi am ba keroog 17 novembre di ñu mën a voté la paix et la sérénité en tout cas ñun de boo jekkoo doo bëgg xeex ndax nee nañ borom caq du xeex ak baatu neen yi nag ñun ñooy borom jàkk yi kon nag